sànq lañ saa yu ñu booloo wat weer waaye yal na fekk ñoom ñëpp ñu bokk fa ñu jëm yéenekaay bi ñu naan l'observateur moo daal di fësal ni fi nga xam moo di pale ba xumtoo ci biir nekk am na fa ginnaaw bi nga xam ni dañ war a ñëwaat ci renouvellement li nga xam mooy bureau bi nekk assemblée nationale am na coow bu juddu woon ci li nga xam moo di mandat Moustapha Niass ndax dañ koy delloowaat ci juróomi at loolu dafa mel ni ñaari kilifa yi waxtaan nañ ci ba jubboo nañu ci mbir moomu waaye dem nañ bi ci mu ne am na ñaari parlementaires yoo xam dina leen jël yóbbu Macky Sall waaye nak jamono yi nak am ay parti yu nek ci fi xam Benno Bokk yakar wa appel li ñooñu dissoudre parti ci bir appel manam daal di sey ci sen bir lu ko de liñ leen jox ci lu duuf ci nak bi bu la dinañ ko wañi moo tax la palais présidentiel jëm assemblée nationale borom gémmiñ guy nàcc dafa mel ni du wax jàmm sampleen seen xalima ci le populaire mu daal di fësal Oumar Sarr Oumar Sarr ginnaaw bi nga xamee ni teg nañ loxo ñi nga xam ñooy Abdoul Aziz Diop ak yeneen ñoñom yi nga xam ni ñoom lañ doon liggéeyal ca nu bokk ci parti bi naan PDS ñoom nag coow topp na leen waaye Oumar Sarr def na conférence de presse boo xam ni lañu tegoo ñëpp daf ko wekki daa di koy teg ci suuf moom nee na lépp loo xamante nii ci wàllu marché yooyu ba tax ñu taqal ay ñoñom nee ki nga xam moo di Macky Sall ca dëgg moom lañ ko war a laaj ca at yooyu ca maître Abdoulaye Wade décision yi mu jëloon yu ci bëri Macky Sall moo ko daal di signé ba tax na moom nee na amul lu muy tiit xam na ni gars yi ci ay tànkam lan ne waaye moom dafa nekk nit koo xam ca dëgg-dëgg du daw du war waalo la dëkk ca nee na pare la jàkkaarloo ak ñoom ci mbir moom ginnaaw kàddu yooyu nga xam ne Oumar Sarr yëkkati na ko waaye dafa mel ni am na keneen ku jug daal di koy tontu Mankeur Ndiaye mu di ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk wàllu li nga xam moo di bitim réew nee na kii nga xam moo di Oumar Sarr li muy wax teguwul fenn wax la joo xam ne waxu ko daane ci saret la moom Mankeur Ndiaye nee na mbir mi buñ ko gëstoo ba ci biir bu doon Macky Sall taqal nañ ko ci marché gré à wala mbirum plan jaxaay yi nga xam ni moom la ñu joxoñ bu boobaa maître Abdoulaye du nu ko woon bàyyi muy génn ci seen gouvernement di taxawal parti bay wéy dina candidat kon jàppoon nañ ko bu yàgg ñi ko rat fi nga xam moo di kaso bi kon nag moom lépp loo xamante ni Omar Sarr yëkkati na ko ki nga xam moo di Mankeur Ndiaye daf ko teg ci suuf daal di koy dëggaate ku bëgg a gis gaynde guy togg tabaski yéen kaay bi ñu naan la tribune nee na da dëkk fi nga xamante ni mooy fan lañ doon séddale ndimbal yi nga xam ni jox na ñi nga xam ni taskatu xabaar yi lu tolloog 700 millions juróom-ñaari téeméeri millions état bi génne na ko jàppale leen ko ci seen liggéey waaye nee nañ nag jamono bii 2012 ak 2013 li nga xam moo di kër yéen kaay dañ daal di yokku 189

kon nag liñ koy tàmbalee mooy mbir moo xam ni doy na waar ca tooyal na xol yër leen l'observateur ci xët mu njëkk dëkk ci soxna si ñu naan Awa Diop Awa Diop nekkoon koo xam daloon doon daan dooleem doon jàng de li mu buggoon mooy daan dooleem tamit jël xaalis boo mu xam ni moom la doon liggéey liggéeyu mi naan mën cee fay li nga xam moo di ay étudiant waaye ndaw sosu def nañ ko mbir moo xam dafa daal di ñaaw vigile nit koo xam ni mbirum kaaraange lañ ko dénk moo ko jàpp daal di faat bakkanam ñu ngi ko fekk fi nga xam moo di HLM montagne ñu dugal ko ci kër goo xam dañ koy tabax ca noppeegul foofu lañ ko fekk fekk fa deret ji fekk nu futti ko mu mel ni sax dañu yegg ci kawam ba pare door a faat li nga xam moo di bakkanam képp ku dëkk fi nga xam mooy HLM montagne ca dëgg-dëgg sa xol tooy na ci neen waa ji nga xam ne def na def nu mel noonu kooku fu mën ci ne dinañ ko wër ba gis ko ñi ko ràpp yóbbu ko fi nga xam ne foofu la mbaxana doonee benn parce que nag ni mu faate bakkanu soxna si nekk na mbir moo xam ne ca dëgg-dëgg metti na loolu tey ma jiite leen neexul dafa mel ni kaay jiitanu moo ko dàq yéene kaay bii nga xam mooy le populaire nee ki nga xam moo di Mouhamadou Bamba Sall moom nag ku ko xam di nga xam ni moom dafa jiite woon nag li nga xam moo di kuréel bi nga xam ni moo tënk ñëpp ñuy ci wàllu diine prédicateur yi ak ulema yi ak ñi nga xam ñoo di imam moom nag dafa daal di démissionné daal tekki li nga xam moo di ndomba tànkam mu mel ni kilifa gi nag nee na am na ay mbir yu bëri yoo tax moo tax mu dem neen dafa nekk nit koo xamante ni nitu daara la te dafa am loo ko donn ki nga xam moo di maamam ca loolu faw nag mu dellu daara ja ca tool ya daal di koy doxal beneen ba ca topp mooy ñi ko soxla ci wàllu mu di leen di ñaanal dafa bëri ba tax na faw nag mu daal di bàyyi dem jubluwaat ci ni ni mbir ca di jiite nit ñi ba faw loolu tamit neexul bu tayee nga jiite bu tayee nga dellu ginnaaw formé ñeneen ñoo xam da nga leen jox ñu dem ci sa kanam yow nag nga dem lijjanti yeneen i mbir ba tax na jamono yi nag am na coow yi ci li nga xam mooy borom ñaari tur yi am nañu yaakaar ne tontu yuñ ko ci tontu moo taxoon mu bàyyi waaye Bamba Sall nee na jot na mu tekki ndoom ba mu bàyyi sax émission yi mu doon def ci jubali ci yeneen i mbir dañuy jàppaat ci seen loxo daal di wéy ba fi nga xam moo di jolof le populaire fa la ñuy samp suñu xale mu daal di lëdd fii la ma cay teg moo di waaroo gay mbir mi fan la xewe jolof la xewe góor gi daal ah am na lu toll juróom benn fukki at takk nag xale boo xam ne as tut tànk la waaye ba ndeme bi ci biir am na coow bu juddu ci seen biir góor gi ba mu meree nag duma a ndaw si duma yu metti yoo xamante ni yat na jóor ba ki nga xam moo di soxnaam su ndaw si mu doon door takk nag dafa daal di damm loxo bi ko yóbbu fi nga xam moo di hôpital mbir mi ban ko xoolee ay mbokk ndaw si nag ñi lii nag duñ ko bàyyi mu jàll góor gi nag faw nag ñu daal di koy porter waaye noonu lañ ko def xumtoo ci biir nekk waxtaane ko ci biir ay mbokk ban tegaat ko ci suuf waaye nee nañ góor gi la tax nag mu damm loxo ndaw si ndaw si dafa nekk xale boo xam ni góor yu bari suñ ko gisee nag dëgg-dëgg dafa soppalu lool ca góor gi nag daa fiir piiraange googu nag moo tax mu damm loxo ndaw si ca mbir moomu nag ña ngi koy topp coow laa nga ca kër ga coow laa nga fi nga xam moo di mbedd mi coow laa nga ca grand place ci seen loxo yéen yéenekaay bi nga xam mooy la tribune lan cay teg moo di tës doy na waar waa ji dafa nekk nit koo xamante ndey dafa tëdd ci biir néegam di nelaw ba si yàgg am picc bu weex tal bu ni fëy naaw nit ci feet nit ci dugg ci biir néeg bi daal di wax ak moom mbir moo xam ne ko dégg da nga naan laa xawla wala quwwata daal di faxas say nopp nee na picc bi dafa wax ak moom ni ko da nga foogoon ni rëcc nga ma waaye nag rëcculoo ma dinaa lijjanti say mbir nee na ba mu jógee foofu nag la nekk nit koo xam ne ci wàllu liggéeyam lépp dafa yàqu ci dundinam mënatul am jàmm promotion yam amoon ci liggéeyam dañu nanguwaat yëpp dafa waroon dem fi nga xam mooy Dubaay ñu affecté ko moo ko ay moromam ñëpp dem waaye moom mun a fexe ba génn dëkk bi lépp lu mu dugg mu yàqu dafa daal di tagg témbe nee na loolu mënul xam lan moo ko teg ginnaaw ba mu gisee picc boobu ko bettoon ci biir néegam fekk ko ci biir ay nelaw nee na nag ku ko ci mën a dimbali na ko ci jàppale waaye nag lu ko moy li ne ci kanamam day dina lëndëm lool lool te dugg na ci mbir moo xamante ni ñu ngi ciy génne loolu ëlëm na ko kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan du def lu dul jaar ci buntu sarale bi daal di dugg yéen ci seen xibaaru tàggat yaram kii nga xam ni boo ko dénkee sa marchandise du lamb ba doo gis koo ko jaay mi ngi tudd Abdoul Aziz Ndiaye l'observateur moo ko daal di fësal Aziz indi fi waxtaan bu yaatu nag ci li nga xam moo nekk ci kanam ci wàllu làmb ji kenn ki nga xam moo di Mohamed Ndao Tyson daan koy boole ak Gris Bordeaux nee na Modou Lo Eumeu Sène dina lu bëri waaye buñ bëree la mu ca namm mooy ki daan dina la jël boole la ak ki nga xam moo di Balla Gaye mu di final boo xam ne donte Balla Gaye ne woon na du bëri ak ki nga xam moo di Modou Lo loolu Aziz Ndiaye ko ci suuf bëggoon boole Bombardier ak ki nga xam moo di Balla Gaye waaye Bombardier dafa ngi waxtaan ci seen biir pour xool combat boobu fan lay Aziz Ndiaye la mu ëmboon ca dëgg-dëgg nag yebbi na ko ca lépp li nga xam ne tënkoon na ko tinki na ko ci l'observateur pour wax li na ci kanamam wàllu lamb ba tey ci yéene kaay bii nu naan sunu làmb dañuy dem seeti ki nga xam mooy Tyson boo leen ko dëggee Mohamed Ndaw champion ba nga xam mooy doomu ndangaan nag ca dëgg-dëgg nee nañ jox nañ leen suukaru koor goo xam dafa mucc ayib Aziz Ndiaye ko jox moom ak Gris ki nga xam moo di Moustapha Gueye yëkkati ci ay kaddu ni ki nga xam moo di Gris Bordeaux na gabari maanaam am na jëmm joo xam ne war na mën a taxaw ak xam ni moo di ah Tyson bërin moom daan ko parce dama waxoon Gris Bordeaux képp ku ma mës a daan ci làmb ji yaa mooy fayul fayul na ko ci Bombardier ci neen jot na nag mu fayal ko ci ki nga xam moo di Tyson mu di combat boo xam ne Tyson nit ñi namoon nañ ko dellu si waat na waaye la ca doy war moy Tyson fay nañ ko 120 millions ci ki di Gris 80 millions mu mel ni Tyson la ma sport business lay def lolou lu mu maîtriser lu mu xam la bu fekkee ni ci suñu lamb ba tey ki nga xam moo di Mike Tyson moom dëggal na deful conférence de presse deful interview. waaye ci ay baat yu gàtt la daal wax ak nit ñi ni leen ca dëgg-dëgg nangu naa ni boo leen ma ak Gris ca man ak moom leen sëgg waaye kaka feelu nag moo di Gaston Mbengue dikk ci ki beneen roi des arènes boo xam ni moo fi nekkoon ñu naan ko yax Yaxya Jóob Yékini moom la boole ak ki nga xam ni moo di. Eumeu seen nee na nag ñoom mois de mai la ñuy daal di bëree mu mel ni nag Eumeu Sène képp koo soxla da ngay jaar ci ki nga xam moo di Gaston Mbengue nee na nag li mu bëgg mooy Eumeu am ñaari combat ci waaye retour Yékini moom moo koy daal di tëgg mu nekk mbir moo xam ni moom moo ko téye ci loxoom ca amateur yi loolu la bu mel ni nag ku jee judd na ci ñi nga xam ñoo di promoteur yi ñaari combat yu mag Eumeu Sène Yaxya Diop Yékini ci la tribune yéen a kaay ko tëgg moo di Gaston Mbengue waaye Tyson Gris Bordeaux ku ko tëgg Abdoul Aziz Ndiaye kujje nag faw mu am ci seen diggante tibbantey tànk ak jëlante jaas yoo xam ni ci interview par presse la lañ koy waxantee ñoom ñaar waaye Abdoul Aziz Ndiaye rek nee na li wér te woon mooy man du ma nit koo xam damay wax damay jëf nan fi bàyyi wax ji ci jël jëf ji waaye Gaston làq na nag lu bari loo xam ci dëgg-dëgg nag du ko génnee gum léegi kenn ku ci nekk nag yaa ngi jéem nax sa morom ci biir làmb ji nga xam ni nag ca dëgg-dëgg coow liñ ciy xaar ak seeguñ ca ba léegi lépp a ngi suñ kanam kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan laata ñuy wéyale li nga xam mooy suñu robe de seen info Twitter comme nag Omzito bësal bouton buma jox bi buma jox be indil bi ci dig bi ñu faram-fàcceel ko gaay kep ko xamni wax nga lamb la koy gëna neexal ginnaw li nga xam modi entraînement yi ak dem outil dolé xarfu fufu ye moo tax parce que ku ci gëmul xarfu fufu xarfu fufu ni la fufu mystiquement bobu blendage mystique bobu nak dañ koy rocci ci lamb ji yóbbu ko fi nga xam modi yon ci wal justice xam ngeen traque des biens mal acquis manam alal jo xam day tegg ci lubal wala ni nga ko amee di tay xelu nit ñi yon nak de la ci tongal loolu nak xam ngeen ni juddu na Sénégal ci nguuru Macky Sall ak nga xam modi di Mimi Touré ba tax na Karim Macky ñonem na nga prison ba way la ci doy war modi magistrat yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk dossier boobu maanaam CREI maanaam commission bi nga xam ni ñoo ñoo chargé wu ci wàllu traque des biens ak acquis ca Alioune euh, ndaw nag jiite leen ñoom avocat yeeg magistrat yi ne na ci biir loolu nag ñooñu nag faw nag ñu jox leen budget xaalis bu takku boo xam dañuy dem ci seeni débat dépp wuti ay butéel wuti ay sunguf wuti ay béjjën fexe nag ba nga xam ci dëgg-dëgg nañ a belendew mystiquement protéger protéger seen ba nga xam ni kenn du leen mënal dara ci wàllu mystique parce que ku mel ni Oumar kaddu ca xaw na leen a xoqatal ñoom tiit boo leen ko gëstoo foofu nag di a kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan dafa mel ni suñu revue de presse quotidienne bi agsi nan fi nga xam foofu lañ koy daalee waaye nag laata ñu koy ndar képp. xam ngeen ni wàllu communication lu am solo la fi nga xam moo di nguur surtout fi nga xam moo di palais bi ku xam nguuru Abdoulaye Wade xam ni communication bis bu ne da doon soppi di dugal ay nit di génne ay nit ci nguuru Macky Sall loolu desul ginnaaw xam ngeen ni ki nga xam moo di professeur Kassé mi nga xam ni moo fa nekkoon ca dëgg-dëgg jëlee nañ ko fa yóbbu ko ci wàllu francophonie ndaxte dafa am ay faay ay manqué manqué ci wàllu liggéeyam fii nga xam moo di Abou Abel Thiam coow doon na ko topp ginnaaw bi ñu indee Souleymane Jules Diop ndekete yow Souleymane Jules Diop mi ñu indi nag mu yor communication président fee fi nga xam moo di ca palais ba nag dafa mel ni moom tamit coow topp na ko ndekete yow fan yi jigéen ñi ñëwoon ca palais ba di fa sabaroo ko balaxal màdd ak a coow loolu am na lu ko ci toppoon ñu ni liggéeyam am na faay yu bëri yu commencé di ci am Souleymane Jules Diop ndekete yow Macky Sall utal na ko kaneen ko xam ne teg na ko ci wetam mu di tubaab bu xonq cooy ñu koy woowee Lionel chevalier leneen chevalier boobu nag moom leen woo pour nag mu yor li nga xam mooy communication ki nga xam moo di Macky Sall war ko bokk ak Souleymane Jules Diop ñaari kuy ci mbir mbalka ndax dinañ fa mën a nekk xam ni Jules euh, Souleymane Jules Diop euh, pousse ko koy génne mu moom jëlul place su kenn Souleymane Jules Diop ndekete yow pankoon na pank goo xam ne dafa àndoon ak Abdoulaye Wade bàyyi nguuram ko lu mel ni xamee nguur ga daanu mu ñëw ànd ak Macky Sall lan moo nekkaat ci kanamam digganteem ak Macky Sall ci communication loolu da koy gëstu gëstu ci yéenekaay bi ñu naan La Tribune ci ngeen xam mbirum Souleymane Jules Diop ak Macky Sall fan lay mujjee. kon nag mbokk ak xarit ci doon seetaan ci Sénégal TV suñu revue de presse quotidienne dafa mel ni jeex na kon nag damay jaajëfal ñi ma àndaloon ci xarala bi nga xam ñu ci bëri nag tay ki ko ŋànk moo di Omzito Samb ci wàllu wax fàng bët bu wax fàng bi nga xam mooy caméra ci wàllu montage bi ci wàllu aspect technique yépp moom lañ ko dénkoon tey jii ngay jaajëfal ah ñu ni seetaan ci àdduna bi yépp du ma fàtte sama doomu ndey Ndiok Malick Dieng promoteur bu mag bi nga xam mu ngi Londres Angleterre maa ngi koy nuyu di ko ziar ci koor gi di nuyu suma turandoo Bara Fall bi nag États-Unis Albany New York ma yéen ñëpp ne di ñaanal mucc ak xéewal ju ànd ak jàmm ju sax dàq ci koor gi di leen ñaanal xéewal yokku taw féex ak lépp loo xam ni wàllu ndam la ak sutura ak wér ak ñu ngi leen koy ñaanal ñu dugg ci koor gi génnaat ci ci jàmm ak salaam ñu leen di wax nag revue de presse bi dina dellu si suba incha allah wasalaam